nekkoon Dakar TV ça n'a aucun sens c'est des nonsense en fait mhm. il faut se défendre de par les idées ne pas mhm. faire des attaques personnelles non mais ça n'a absolument aucun mhm. sens et pour man ce n'est ni gentleman ce n'est ni intelligent <laughs> te bul fekk koo xamante ne wax dëgg yàlla bi fi gaynde di ruuxu dawul <laughs> nga bëgg yaakaar ne yow muus mu ndaw mi dina fi ne ñun ñuy puus ak randu loolu il faut ñu arrêter loolu il faut arrêter cette campagne non j'y tiens cette campagne de dénigrement <laughs> et de diabolisation qui se passe sur les réseaux sociaux mhm. soi-disant parce qu'une personne n'est pas d'accord ak gis-gisu sa leader politique loolu il faut ñu arrêter ko c'est des no-sense en fait mhm. on se débat par les idées c'est-à-dire franchement hormis l'opinion bi ñuy am sur les questions politiques on n'a pas contre Bougane Gueye Dany ou contre une toute autre personne. Mmh. lii am rek mooy ne on est habilité à chroniquer à donner notre avis par rapport à certaines questions te nag yaa xayti mm-hmm. dans ce pays ñoom ni ñuy bañee sens unique ou pensée unique mm-hmm. sur une certaine frange pour dire les patriotes mm-hmm. noonu la ñu war a ñoom itam bañ a appliquer non seulement en plus d'être pas souvent indiscipliné mmh. technique de dire que ku dal sunu leader ñu dal la on n'est pas dans l'attaque te taluñu fayonte nu mënuñu xeex ba Macky wàcc ñu bëgg a continuer di xeex ci régime actuel hmm. loolu duñu ko mën penda hmm. ñun duñu seen ay ennemis hmm. on donne juste des points de vue et il faut arrêter de colporter des ragots et de dire des choses qui ne tiennent pas la route sif am na solo on devait pouvoir faire la politique autrement pour revenir à Bougane Gueye Dany il faut savoir que euh, su nekkoon ne dañoo dañu topp logique pour logique bu ñuy wax wàllum politique fii ci Sénégal moom Bougane warul wax parce que moom il a eu l'occasion de donner son point de vue il ne l'a pas fait nee ma pourquoi. pourquoi parce que man mënuma yaakaar ne nit koo xamante ne ba vote jotee dañ laa ne yow amal foofar yow nga ne yow doo ingérer ci li nga xamante ne moom mooy euh, apporter woo sa poids pour nu mu mën a changer vote boobu ce qui veut dire que yow joxe woo sa kàddu après nga bëgg bu ñuy wax ci mbir ci mbirum réew mi yow nga bëgg cee génne sa kàddu mënul nekk dafa mel ni nit koo xamante ne daf la ne man du voté ku dul voté lu muy lijjanti politique nu muy demee ak ñi ko dirigé ak ñi ko kii. parce que biñ ko joxee occasion moom Bougane pour moom mu wax ci politique gu Sénégal indi poids moom dafa bañ dafa croiser les bras foofu laay wax chaque jour il a raté train wu histoire politique gu Sénégal kon munoo bàyyi ba jaan gi dem ngay watatat ci ginnaawam. moom il a fait des choses ah Bougane a fait des réalisations Bougane def na fi ay opération topp tàng Bougane yàgg na sonal président Macky Sall. non musu koo sonal mami génn ci li nga ne. non non non non mais Bougane Gueye Dany a eu non taxawal. man boog sama gis-gis. xaay ma wax la lu tax je donne mon point de vue. parce que yow loolu loolu la ko maa la ko ñaan may ma loolu. vas-y yow loo dama la koy jox def ay actions yoo xamante ne moi j'ai jugé ce sont des actions salutaires mm -hmm. à un certain moment dafa sax monter en estime mm par rapport ak ñii ñi Sénégal nu ñu ko doon gisee ci wàllu politique ndax dañoo jàpp ni Bougane dafa am benn courage mooy ne mhm. def na ay opération topp tànk def fi ay opération slogan yu bari yoo xamante ne xeex régime bi moo ko moo ko taxoon jóg mhm. on l'a entendu s'exprimer et dénoncer également certaines pratiques yu président Sall doon def ci loo xamante ne askan wi euh, maanaam daf leen doon désavantager man pour man loolu Euh, mérite la bu mu am man problème bu Bougane xam nga lan la ci man ci mhm. com ci politique am mhm. un c'est sa communication deux c'est des problèmes de stratégie et d'orientation te loolu il faut qu'il revoie ça avec son staff mooy ne politique am na loo xam ne boo ko xësee ba am ci ay acquis da nga koy préserver mais doo fexe acquis yooyu nga ñàkk ko et de manière intelligente mooy ne il faut s'allier aux bonnes personnes et il faut garder aussi une certaine constance. moom laa lay et sa communication baax. boo ko defee sa politique de réussite may ma ma fëlee foofu xam nga loo tax ma ne la il n'a jamais dérangé hormis que ne saa yi su waxaan su waxaan ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall da ko daan tëb mel ni benn ñebbi ci kën tontu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. Bougane Gueye Dany bu doon réellement li nga xamante ne nit ku dëggu la fort tànk yooyu ak tomp tànk yooyu mu koy wax est-ce que dafa dafa dem ci logique am jusqu'au bout dafa wax ne moom bëggul nga xam ne moom mooy régime bi fi nekk. mu daan jaral ko muy topp tànk ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall fu nekk mu dugg fa ak moom biñ jox biñ ko joxee occasion pour mu teggi fi li fi nekk génn fi Macky Sall teg fi nu ma tëddi anti système bi nga xam ne moom la doon woote il a choisi d'être neutre. comme il n'a jamais été franc. non neutre la moom moo di position ba baal ko baal ko baal ko. bu bu doon xoolal xoolal xoolal s'il te plaît xam nga sama xol dafa neex. mais quand même mais non mais. <laughs> il faut tamit ñu wax mbiri nu mu. mais mais quand tu te réclames le deuxième tour la doon xaar. deuxième tour la doon xaar quand même. waaw noo ko dóor bul dóor bul énervé bul dóor dañ lay wax rek waaw dañ lay wax rek. yow ñaata yoon ñaata yoon la fi pouvoir gagner premier tour. yow bu nekkee ne yow forcément da nga bëgg li fi nekkoon jóge fi est-ce que yow di nga xaar deuxième tour. déedéet lu tax mu xaar deuxième tour. ci ci ci vague bu oh, gaal bu bees bi bi bi njëkk dem. départ ce qui veut dire moom bu doon Bougane Gueye Gueye Dany kese. Dany Gueye Bougane kese bu nekkoon moom kese la heure bi Macky Sall mu ngi takk suñu put yi wala Amadou Ba ci dundam gi mu nekk ak gouvernance Macky ñu ngi takk buum suñu buum yi di diree koog ñun. ci gi heureusement que ne bi ñu fi amee homme ku mel ni Ousmane Sonko ak certains poli euh, numtati politiciens yi nga xam ne ku ci mel ni Mami Touré Mimi Mimi Touré ñoom euh, docteur Cheikh Tidiane Dieye ñoom Abdourahmane Diouf. ñii ñoom ñooy wax ma dégg li ñuy wax mais Bougane Gueye bu ñuy wax ci politique Sénégal daa war a tëj làmmiñam Mimi Touré boobu ndax bi ñu ko joxee occasion mami pour mu exprimer wu dafa croiser les bras il a dit qu'il va s'abstenir mm. alors quand on parle d'histoire politique au Sénégal que Bougane Gueye dañuy ferme sa parce qu'il n'a pas son mot à dire foofu laay waxee ak yow damay delluwaat rek xoola daanelee fi nga xam ne moom lay commencer mami bul bëgg alalu nit bul bëgg yàlla may nit ndax tant que yaa ngi bëgg la yàlla may nit doomu sa doylu xam nga li ngay wax nii ñàkk a doylu moo ko jëlal ndax am na benn estime bi mu taxawoon mais ñàkk a doylu ak bëgg a foqati lu Ousmane Sonko yor tey moo ko jural ne xale bu gën a ndaw sax buy jënd ji gaz day gàddu gazam dem ba ci boutique ba ne jaay leen ma Bougane Gueye Dany xale bu am 7 ans wala 8 ans. Oh. te loolu lan moo ko indil bëgg lu jàmbur. te nag bu doon sama alal la bëgg mu yomb bu bëggee ma mami dina yomb mais na nag ku sell ki la bëgg alalam Ousmane Sonko mun ngaa toog cent ans doo ko gis ci planète bi waxatuma la ak moom kese ndax moom kese moo fi def lu kenn defut Bougane Gueye Dany nag moom kese moo fi def ci loo xamante ne ci lu salte lañ ko jàpp moom kese moom moo ko fi def kon nag na noppi. Mimi Touré bi nga tudd léegi quand on parle de politique au Sénégal que Bougane se taise. Mimi Touré bi nga tudd léegi. Mm-hmm. dafa def ab tweet. Mm-hmm. ni une déclaration de politique générale devant une assemblée nationale qui ne reflète pas la volonté populaire n'a aucun sens comme li nga doon wax sànq que ni li gis ci ci yu présidentiels yi ñu am li nga xamante ni pour cent mën na ko waxatee woon loolu day wane que ni. pour cent ñoom la am ci euh, euh, élection présidentielle yi nga xam ne moom moom mu ne. xam nga nañ dem ci dissolution assemblée nationale. non avant loolu sax xam nga c'est-à-dire. Mhm. ci ci même ci même lancé boobu nga nekk ci même ci même lancé boobu mhm. ci même lancé boobu ni une déclaration de politique générale devant une assemblée nationale qui ne reflète pas la volonté populaire n'a aucun sens buggaan tontu ko buggaan tontu ko ni ko ah oui l'assemblée nationale ne reflète pas l'expression de la volonté populaire à travers les élections législatives être candidat sur une liste et une fois élu changer de camp ne révèle-t-il pas de la pure traîtrise. ciw Bougane Gueye. Bougane da ci tontu la nekk moom moom moom ku gën a nekk traître Bougane Gueye dani. dugal de. dugalul ko. loolu du ku ah, parce que xam nga nit saay so xam nga lu ñuy naan ko wax feeñ. moom bu jëloon seetu rek toog xool boppam loolu mu wax Mimi Touré du ko wax ndax lu tax. ndax Mimi Touré au moins on sait pourquoi il a changé de camp Mimi Touré a a changé de camp parce que dafa ànd ak ay nit may mm. la ma mi ma ñëw dafa ànd ak ay nit xeex li muy xeex ñooñu daal di koy trahir mu daal di fay génn am na explication lu tax mu génn fa mm. mais est-ce que Bougane Gueye Dany mun na la wax lu tax mu toog ci plateau télé ne man enti système la damay ànd ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye Bassirou jomaa Diakhar fay constitution bi jox ko pour mu bokk ci élection yi Bougane toog abstenir loolu mooy trahison loolu mooy nit ku xamul boppam. kon nag ku duggul moom dafa dóor bal ci kaam. mais Mimi Touré man bokkoon bu gaan ngay dani moom dafa tourné jàkkaarloo temps yi nii dóor bal bi mu dugg ci kaam. mais Mimi Touré ma bokkoon ci ab dem eh. dem ba ci biir moom it rocceeku ndax. xam nga lu tax mu roccee ko Penda il faudrait que tu m'écoutes quand je te parle ah, je te dis que Mimi aujourd'hui tey buñ ko waxee mun na expliquer lu tax mu génn fa Penda man du ma ànd ak yow xeex li ñuy xeex yëpp ba pare bi nga xamante ne desul lu dul falu mën nga def te de liste ma wër dëkk bi yëpp ñëw taxaw ma am majorité assemblée nationale nga yëkkati ko jox ko keneen ba pare bëgg maa neexalee leneen. sans pour autant sax nga wax ma ko. sans pour autant nga wax ma ko. mais majorité boobu déglu ma ma daal di fay jógee. mais majorité boobu Mimi Touré di nga dàq ma assemblée nationale kon nag yow boo toogee naan nu mu naan lu tax Mimi ko Mimi retourné waat di mais injustice bi ñu ko teg moom mooy expliqué loolu mais moom nag lan mooy expliqué neutralité bi nga xamante ne moom la def nañu wax samdem yu bëri yi nga xam ne jox na ko sénégalais yu desul lu dul participer au l'histoire à l'histoire politique du Sénégal mu croiser ses bras aujourd'hui gis nga loolu muy wax bu jàkkaarloog seetoom xool nii boppam dina xam ne lépp lu mu wax ci phrase Mimi Touré bi ça l'incombe mais ndax Mimi Touré war na war a mën a tuuteel assemblée nationale bi nga xamante ni. bi ñu am ñoom majorité bi nga xamante question boobu xanaa mami nga koy posé ndax man maa fi njëkk a toog wax la ko. moom si boppam mi nga nga xamante moom moo di combat ba ñoom ñu am li nga xamante moom moo di majorité. mais il a parce que moom déjà. bi muy voté mais naka lay porté combat ba ñu majorité ba pare moom wëlbatiku tey jii. dégg nga di leen assemblée nationale qui ne reflète pas parce que moom gis nga majorité boobu pour mu bokk ci ah, moom ci boppam xam nga moom ci moom fan la bo voté woon du assemblée nationale déjà moom changé na de camp ñi mu àndaloon changé nañ de camp gis na ñeneen ak ñeneen changé na changé nañ de camp élection euh, euh, présidentielle yi ñu fi jógee war na ne ñun ñi dañ leen a ba dëbb seen kaw kon nag yow boo toogul ne la léegi nu mu tërati balance bi changé na de camp lan ngay wax mais terewul boobu les balance moom moo mëneewoon li nga xamante ni moo di combat bi. même moom moo ko mëneewoon. empreinte am du ci mos a dem. même su fekkee ne empreinte moo ko mëneewoon. mais léegi même ko bu nekkee ne da koo mënee les situations ont situation yi mu changé dafa gis ne ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ca APR léegi génn nañ fa dellu nañ ca beneen balance ba léegi doo taxaw ne balance bi changé na wala da comme comme da nga bokkoon ci ñi tabax kër gi rek dangay ne dëgg-dëgg kër gi rafet na même bu nekkee ne niñ ko tabaxee dafa dëng mën nga ni nga ko tabaxee dëgg na waaye bu dee fondement bi yaa ko defoon war nga war a mën a am boo defaree fondement bi nag yow yaa war a mën a gën a placé wu pour taxaw ne lii nii fii mu tax point ba mu nekkoon nekkatu fa ndax fondement ba yow yaa fa nekkoon kon nag boo nee kër gii dafa dëng nit ñi dañ koy war a mën a gëm Mimi Touré moom moo nekkoon ci mouvance présidentielle jiite li nga xamante ne moom moo nekkoon euh, liste départementale bi te bi mu demee moom ci boppam biñ ko gañee ba pare dafa dem ñi ànd ak moom dem mu gis ñeneen ak ñeneen ñoom tamit dem nañ daal di dal ci beneen côté ba moom si boppam mu xam ne aujourd'hui après amatul sax Mimi Touré li muy wax leen bu ñu sukkandikoo dernière élection yi la ñu mën a sukkandiku xam fi mu toll poids électoral bi fan la nekk te bu ñu jógee ci pré euh, nu mu tërati ci li nga xamante ne mooy présidentielle yi mm-hmm. xam nañ ne fi mu toll nii ñi nga xam ne moom mooy mouvance su euh, kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoo dëbb dëkk bi ba mokk mais ndax ñoo yor majorité bi keneen yoru ko. mais ndax li Ousmane Sonko toog nag naan nu mu tëddee assemblée nationale munoo comparer assemblée nationale ak li nga xamante ne mooy présidentielle ndax présidentielle moom lañ mujj def téeméeri di ñëw assemblée nationale y'a deux ans lañ ko def présidentielle y'a trois mois lañ ko def léegi yow booy comparer nga bëgg jël li nga xamante ne situation y'a deux ans bëgg ne moom moo nekk ci dëkk bi. mais waxee. ni soyons sains d'esprit au su fekkee ne assemblée jëlul matukaayam moom dina amal li nga xamante moo di déclaration de politique générale waaye du ko amee ca kanamu ca ca kanamu député ndax lu ni mel du gën a yokk ci xar mi karaw ndax lu ni mel également solution amul yokk xar mi karaw dëgg tigi moo tax ma naan mami quand mami di comment on fait pour ne pas aimer cet homme. mais Ousmane Sonko ban droit la war a mën a am moom bay def bay bay dem. nan la ñu askan bi. askan wi léegi yow boo demee ci assemblée nationale nga gis ne règlement bi règlement bi dëppoo ak yoon nga ne dama leen fay bàyyi dem jàkkaarloog askan lan moo nekk di kon solay député yi. c'est parce que dëppootuñu ci yoon. léegi yow da ngay gis ne lii fraude la nga ne de comme comme moo fi nekk nag man kon damay dem frauder comme ñëpp man je d'accord pour ñu rétablir li nga xamante ni moom moo lii ngay naan nii léegi fraude la nga ne kon man dama koy naan pour frauder comme ñëpp damay ne nañ ko régler buñ ko régler wul nag te damaa war a def nañ ko régler d'accord voilà nañ ko régler mais est est waru woon war mun a yem uniquement ci nañ ko régler léegi buñ ko régler du def léegi bu leen ne comme yéen da ngeen di toog léegi bu ne leen nañ ko régler ñoo xamante ne depuis 2019. bu ñu fexe ba régler ko dañuy toog fii ak 2 ans mu rek ñu régler. mais plus que déclaration de politique générale sax yaa ko rappelé. Mhm. kenn tënk ko ci benn délai. waaw Euh, bu ko neex mun na ko def. mun na ko def waaw kon kay jaru yàkkamti mun na toog ba ñu ba ñu rétabli li nga xam ne moom moo di règlement askan wee koy yónni te yàkkamti ko. du loolu sax du loolu du loolu loolu du tontu bi. mooy mhm. Ousmane Sonko n'est pas pressé. ce mhm. sont les leaders de l'opposition. qui sont pressés de le voir à l'Assemblée nationale. mais mais on a comme l'impression que moom il est mu ngi joxe date fii ak le 15 juillet. Penda oui. Sonko répond à ses détracteurs. Penda comme Pape Ngagne déclaration de politique générale niróole nga ma ak sama patron nag ah. waaw niróole nga ma ak ku ñëpp jox cër ci ci métier bi. li ngay wax ci perte dëgg la kon kay maa ngi ci yoon de ah. ma yeggali pour ne pas perdre le fil. vas-y ma chérie. vas-y ma chérie. excuse-moi. mami nag man la bëgg de ngeen xamee ko man man naa ko laaj. kenn bëggul man nag lay toog ndax ñi nga bëgg la. dama koy wër. walaay wër ba ngoon ba des non dëgg leen dama ko bëgg saa moom moom wax dëgg yàlla.